sëñ bàmba nag fab xasaayid yëpp daal dina xëñ addis ak téere bi yombal la mbir maa ngi jëlal xasaayid yi yow loo man durus danga am yoolub ku wàcce limub kaamil lu wér laa ngi koo xam ne nag alxuraanam kat da koo jafe lool laay wax ki man alxuraan nay boole ñaar yaa ngi sëriñ bi wax na ku am yoolub addis am yoolub xuraan ak bu màggal wétt waa ngi yii yëpp nag benn boo am rek rek la wax ko alxuraan faat sikar faat ko dab gaa ngi màggal gi ngay dabe mboolim yi wa amoon tem raw la yow mi nga doon dab jiitu muur maa ngi kon nag am yoolub màggal gi lu mat ati at ëtt ba sëñ bamba ne ngay ne lu doon laa ngi jataayu sëñ bamba bee muy ne akub yonenam ku bëgg a teew na nga teew màggal si njëg gaa ngi ku la teew na nga jël aslëf te def ca ba tey bu yéene sellee nga feeñal yéene jëf jaa ngi loo def ci màggal gi sëñ bàmbaa ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci miliyaar loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaa ngi nun gaa yi dëkk ak Tuubaa ci biir dëkk bi lan saar buñ ñu yóbbul lenn muñ gaa ngi yonen bakat fu mu geesoo gis sëriñ bi mu teew fi ak wetam gaa yi baa ngi gaa yaa ngi sëñ bambakat nee na doo gis kenn man ko ci too loobu yàlla bi alxuraan jëwrin jumat jaa ngi sëñ bambakat nee na doo gis kenn man ko ci too loobu yàlla bi alxuraan jëwrin jumat jaa ngi lansaar yi mooy nun ñi am fii kër te gan ñi di ñëw yonen ba wax na lu wér ci gan addis baa ngi man kaana yoominu kon gan ñi na leen di teral yonen ba lii lanu wax toppal ndigal laa ngi nan wàcc sun lal yi jox toggi ñam joxe xiif di kaf di ree belli moo gën berne mbig maa ngi nan wàcc sun lal yi jox leen toggi ñam joxe xiif di kaf di ree beli moo gën berne mbég maa ngi waykat ba nee na lu gan gii maanu maanu du tee buy dem di nettali lam ges moytu xas waa ngi nëbbal sa jikko te jikko yiw te nëbbu sa mer bu mar te bu mer te it nay maare yoon waa ngi saggan ba saggan déwén buy del si waat xalaat dalaat sa kër da nga ne tuuba lu ñaaw laa ngi sagan bu yegsee ne moom daa sonn na ko wutal fu yaa mu soonu fa yow féexal ko ndam laa ngi buy lekk it bu ko boole jëmm yooyu xamu leen bu dee borom kersa day ru suur te lor jaa ngi bul gëdde bul xasse bul dóor donte day gone sax ki teewu gan gi da koy rëdloo lu ñaaw laa ngi sàggan ba sàggan déwén buy del siwaat du xalaat dalaat sa kër te nga ne tuubaa lu ñaaw laa ngi sëriñ bi baaxe la may la gu yaa ne fayax mu am ganam ñii bu leen mer loo lu sew laa ngi yow gan gi nag bul nekk gangal nit ku def la mu man bam jeex ca tàkk nga koy ñaan paas lu soof laa ngi yeneen ba it dafa wax ne addiyaa fatu nag salaasatun ñetti fan mooy ngan waxam jaa ngi sëriñ bi fàggu na laajul kenn lu mu lu waaye di jox nit na doon lu man digal laa ngi ku dal ci kër gu ne war naa fonk kër ga mu dal ngir picc sax car ba muy dal naw ko roy gaa ngi liggéey bu dee jot nga ànd ak ñoom liggéey la nga man sa wërsëgit bu ko génnee kër ga xel maa ngi liggéey bu jotee nga ànd ak ñoom liggéey la nga man sa wërsëg